monsieur Claude Demba Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm, yow nga jiite association meunier industriel du Sénégal ngeen ko xamee AMIS euh, tey ngeen di ñaxtu nit ñi noonu lañ ko waxee euh, lan mhm. moo waral ñu dégg leen. waaw xam nga euh, ñëpp gis nañ ni ci àddina bi yëpp. Mhm. lépp luy maanaam. céréales yu jógee ci bitim réew. Mhm. fépp buy jógee ci bitim réew rek. Euh, gis nañ ni que yokk bi jéggi na dayoo. Mhm. Euh, ñun nag euh, li ñuy wax dañ ci yàgg waxtaan ak ministère du commerce ak ministère de des finances. Mhm. parce que yàlla daf ñu baaxe lépp li nga xam ni mooy njëgu farine. Euh, maanaam kenn mënu koo euh, joxe te jógewul ci ndigalu nguur gi ba loolu tax na euh, yëngu-yëngu bu ci am rek dañuy dem ci ñoom waxtaan ak ñoom pour ñu mën a dëggal li nekk yàlla nag def na bi yokk bi amee jóge deux cent soixante dix euros tonne dem ba trois cent vingt cinq toog nañu ak état bi ba xool li nga xam ne moom la mën a def pour xam lan mooy njëgu saaku farine euh, bi loolu amee état bi dugal ci loxoom euh, dindi ay taxe dindi droit de douane waaye ni euh, bu jàppee fi blé bi toll tey saak moom war na mën a jar dix neuf fii ci Sénégal bu bu fekkee sax dugaluñu ci yeneen yoo xam ne jaru ko maanaam ñi xam nañ ni Euh, yeneen euh, yokku yokk gis nañ ko ci saaku saaku yi gis nañ ko itam lépp loo xam da nga koy dugal ci farine bi waaye dañ ni loolu taxuñoo jóg mm-hmm. parce que lii li nga xam ni moom moo wér te mu mm-hmm. mooy euh, blé moom toll na foo xam ni kenn mënul werante fi mu toll tey parce que soo duggee ci internet rek da nga koy gis mm-hmm. bi jàppee loolu état bi nangul ñu ni saaku bi tey dix neuf mille cent quatre vingt treize la war a jar waaye dafa jàpp ni suñu jógee seize mille six cent jaayee ko seize mille cent quatre vingt treize faaw mburu yokk te ñoom nammuñu benn yoon mburu yokk ci dëkk bi askan bi dañu diggeeg ñoom ne leen dara du yokk ci ci dëkk bi donte ñoom xam nañ ni yokk mënta ñàkk am léegi nag waxtaan bi mooy comme ñoom bëgg nañu seize mille six cent yi toog fi wala mu yéeg ba dix huit mille pour que mburu bañ a yokk ñoom dañ ñu waxoon nañu taaxirlu ñu seet seen biir naka lañuy ñuy defee ba nangul ñu ñun suñu dix neuf mille cent quatre vingt treize waaye fexe ba mburu bañ a yokk loolu nag liggéey bi dafa yàgg ndaxte bañ ko waxee ak léegi Euh, ëpp na fukki fan ak juróom. Mhm. Euh, li ci gën a metti mooy bañ leen waxee ni ñu ñii fi mu toll nii amaana mënatuñu continuer dañ ni may leen ñu euh, ay fan dañ ci mën a waxtaan ak kilifa gi pour que ñu mën a xam fan la ñuy jëm ak nañu koy doxale mhm. pour nangul leen seen waaye dañu gis ni. Mhm. ci. conseil des ministre xam nga euh, conseil des ministres bu amee mercredi. Mhm. Euh, ci ëllëg sa lañ fa wax lañ fa jàpp yëpp dañ koy. Euh, préparé waaw dañ koy jot. ñu gis ni ndeke mbir mi nga xam ne ñun ñu ngi ñu ngi jonkan di xaar lañ ci wax ndeke ñun tudduñu ko sax maanaam donc ñu jàpp ni ñun dañu néewal ñu ay soxla te lott nañu lott boo xam ne ni usines yi mënatuñu continuer di jaay di perte. ñu ni kon nañu téye arrêté di jaay ba waxtu bu nguur bi ne euh, jaaree lañu fii pour may leen ngeen jaay prix bi nga xam ne moom moo jaar loolu mooy xaalifa la yéen euh, ñu ne da ngeen seen yoxo ndax li ni mel la non moom lay wax xam nga usine bu doon sagoom du banque loxo hmm. xam nga nit kii bu demee ba def yenn investissement jëndi blé wal koog ñoom seen hmm. bu doon sagoom da koy jaay hmm. waaye bu fekkee yow dañ la ni jaayeel seize mille six cent te njëg bi hmm. mooy dix neuf mille cent quatre vingt cinq maanaam saako bu nekk nga ci perte juróomi téeméer xam nga lool du dem te yoon sax daf ñu ko tere ñu ni kon nañu xaar nguur niiw naka lañuy ñuy organiser ba mën a jaay ñun dix neuf mille cent quatre vingt treize pour mën wéyal suñu suñu liggéey d'accord mais grève leen non du grève ñun kay dañu dañu euh, arrêté jaay di perte xaalis rek loolu rek la def ñun kay euh, grève bi kay suñu nattu la xam nga yor sa usine di fay ay employés bu paree da ngay grève amul amul mhm. ndax dafa am ñeneen acteurs yi nga xam ne bokk ngeen secteur bi yéen ñi meññee yi ñi ngeen associé ci euh, bileb dogal waxtaan ak ñoom ngir ñoom ñu xool nan ngeen di amee benn taxawaay ànd ci ngir mën a euh, andi nguur gi mu nangul leen li ngeen bëgg. non xam nga xam nga nit ñi li ñu réere hmm. mooy lii ñu wax ni dix neuf mille cent euh, du loo xam ne dañu tëju ci néeg rek génne ko déedéet hmm, hmm. Euh, comité des prix boobu boulanger yi dañ ciy bokk consommateur dañ cee bokk ñëpp dañ cee bokk donc euh, du loo xam ni dafa ubbe léegi nag li nga xam ni ñoom boulanger yi wax nañ ko ca réunion yi mooy bu fekkee effectivement farine yokku na ñoom dañu yokk mburu mhm. parce que ñoom dañu jàpp ni ñoom itam dañu am ay jafe-jafe te kenn dégluwu leen mhm. waaye loolu jotewul dara ak farine cest à ñoom dañu jàpp ne seen secteur ñoom ci seen bopp mhm. am nañu ay jafe-jafe yoo xam ni war nañ ko mën a waxtaane ak nguur gi loolu bokkul ak farine dañu jàpp ni déjà di jëkk mooy euh, mayoon nañ leen ñu ñu liggéey ay format wu cent ak cent cinquante ak deux cent mm-hmm. waaye nag ci biir format yi dañ leen waxoon ni cent ak cent cinquante yi moom lu ngeen ci def baax na fu leen ko mën a jaay amul jafe-jafe mm-hmm. waaye deux cent bi moom na ko jaay ci boutique ba rek parce que li ñuy bañ mooy bu ñu leen mayee ngeen di def format wu deux cent di ko jaaye comme format wu cent cinquante maanaam fépp fu leen neex jaayee mujjantal bi mooy dafay mel na dañu nangu mburu dafa yokk donte poids bi la ñu yokk pour mu mu yegg deux cent francs te nguur gi ne leen daal man sama xel daf ci teey parce que xam naa ni su ma leen mayee loolu rek day prof ndoll la boo xam ni da ngeen koy wéyal ba li ngeen di jaay yëpp deux cent francs lay jaay bu ko defee mburu deux cent francs lay mujjee Sénégal loolu nag dama koy bañ mun ngeen ko defar waaye ca boutique ba lay yem ah. ñaareel ba ñu ni am na benn organisation bu ñu defoon hmm. maanaam dañu waxoon ni secteur bi yëngu woon na yëngu boo xam ne war nañu xoolaat naka lañ ko war a tabaxee euh, wax ni euh, boulangerie yi dafa am distance bu ñu war a sori hmm. euh, kiosque yi am na distance bu ñu war a sori mburu am na fu hmm. ko war a jaayee am na anam buñ ko war a jaayee am na anam buñ ko war a transporter ak yooyu loolu nag dañu jàpp ni boobu léegi dafa sooxe te te loolu ñoom boulanger yi gëm nañ ni bu fekkoon secteur bi euh, lañu ñu waxoon ci organisation ba euh, jaar na yoon kon hmm. ñoom seen soxlu daanako ko réglé na yàgg na maanaam waxu farine sax kenn du ko wax kon tey bu fekkee ni ñun dañu jàpp ni euh, boulanger li wax xel mën na ko nangu hmm. ñun ñi nga xam ni dañuy liggéey ak ñoom parce que nag euh, boo nee mburu farine moo tax. dëgg la kon euh, bu dee ñun dañu jël boulanger def leen suñu noonu dañu nax suñu bopp. justement am na sax ñu ne euh, yéen li ngeen di yëglu du rek lu dul bëggal boulanger yi ñu àgg fa lañu bëggoon ca la ñu bëggoon muy ñu yokk mburu mi. non xam na lu xel nangu ak lu xel nangu. Hmm. tey li wóor ba wóor mooy bu fekkee boulanger yi ñoom euh, seen liggéey jaar na yoon hmm. ñun si suñu bopp euh, maanaam dañ ci gis suñu bopp parce que nag su fekkee ka ngay liggéeyal ah yàlla may na ko wér ak wérle euh, ba mu mën a am lu nekk ci poosam boo xam ne buy jënd du am benn fitna hmm. bu doon sa sago sa client noonu lay mel waaye nag dañuy jàpp dara mooy ñun duñu ànd ak ku nekkul ci dëgg Euh, bu fekkee boulanger yi lañu wax xel mun na ko nangu ñun ñi nga xam ni dañuy liggéey ak ñoom euh, duñ leen fa bàyyi parce que xam na ni suñu njëriñ la waaye nag euh, wax ni boulanger yi ak meunier dañu lëkkaloo di dóorandoo loolu amu fi ku ne dafa am ci la ngay yëngu ku nekk di régler sa problème mu bopp waaye dañuy bokk nag réunion di dégloonte ku nekk dina xam lekk sa morom di wax ndax jaadu na wala jaaduwul léegi nag bu fekkee ni ñoom li ñuy wax jaadu na ñu ñu ci nit ñi di rek ñoom la ñuy faral ah bu boobaa dama naan ñoom la ñuy faral. monsieur Diop yéen duguleet ngeen di yëglu. lan moo mhm. waral euh, yéen lan ngeen jàpp ne moo tax ba état mënul saafara seen mbir mi. non état état état gëm na ni euh, farine fi mu toll nii mënta ñàkk yokk parce que mbir mi fépp la xew. Euh, waaw àddina bi yëpp Euh, gis nañ ni farine yokku na àddina bi yëpp foo dem di nga gis euh, blé yokku na farine yokku na kooku mm. moom amul werante defe naa ni état bi si boppam nangu na ko werante amu ci état bi kay li li ko jaaxal mooy digle bi mooy bugguñu mburu yokk léegi nag fi mu toll nii mooy seeni pexe mooy naka la def ba farine du yokk yóbbaale mburu loolu kese mooy seen ité du leneen du problème bi mooy farine bi nangu nañu prix bi lii la problème bi li ñu li ñu li ñuy li mooy euh, bañ mburu yokk ci dëkk bi parce que jàpp nañ ni euh, askan bi du attan yokkute mburu mais li ñu xamul itam mooy askan bi aussi xam ne li jaadu ak li jaaduwul parce que dëwlin bi yokk nañ ko mm-hmm. loo xam ni mënta ñàkk askan bi day xam ni du coobare état du coobare ka koy def mais addina bi moo ko laaj parce que bu fekkee ne nag yow la ngay am yëpp da nga koy jéegaane xel war na mën a nangu la ngay jëndee ah, ca bitim réew bu yokkoo ka ko ka ko indi mu yokk ko waaye mënoo jëli bagage jëlee ko bitim réew indi ko ba fii coono ba nga ca daj la nga ca def ah, mu dikkee la fukk ñu ne la bu ko jaayee fukk jaayee ko juróom <laughs> ndax mën nañoo euh, jàpp ne seen lànk bañ jaay bi mën naa dem ba mburu manqué <laughs> ci Sénégal. ah yaakaar naa ni day ci sama xel bu gàtt état du Sénégal du yegg foofu parce que nag ñoom euh, nekkal nañ fi askan bi yëpp maanaam bu ma askan bi mooy euh, industrie sénégalaise bi ak ñi nga xam ñoo fay daan seen doole. Mm-hmm. état bi day bàyyi xel ci ñoom parce que gënulu ko. Euh, nit ñi bañ xëy euh, ñaareel ba mooy état itam du nangu benn yoon nit ñi xëy suba xiif ak di mar donc lépp loo xam ne war na ko ci def am naa yaakaar que diñ euh, ci def seen kem kàttan pour que loolu yàlla def ci ndox mu sedd mm-hmm. donc li nga xam ne ci la nekk ñun ñëpp nangul nañ ñi maanaam ñoo nekk ci dëgg parce que xel mun na koo nangu waaye itam état ak taxawaayam mën na jàpp ni su amee prof ndoll wala bunt ba benn euh, maanaam yokkute bañu am ci dëkk bi mu def ko waaye day fekk nag moom ci boppam ah mu mu li nga xam ne moo ko sooxee mu def ci saafara bi ci war waaye nag euh, ñun lool rek la ñuy ñaan. Mm-hmm. Monsieur Claude Demba Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm.